أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi delluwaat ci sunu téere kitaabu tawxid tey mooy dars asaalis asara muy fukkeelu dars ak ñett ci téere kitaabu tawxid buntu tey bi moo topp ci dars bi passé te mooy alxawf min ashirk leçon bi ak bële ñoo bokk te mooy buntëb a ragal bokkaale alxawfu min ashirki ragal gi nga xam ne ragal nañ ko ci ab jullit mu dugg ci bokkaale bu ñëwee ci min ahdafi dars jubluwaay gi nga xam ne leçon tey bi dina ko am bu njëkk bi mooy an yashraha al muslim fadilati salaamati min ashirki ngëneelu xam gi nga xam ne war na ko xam jullit bi mucc ci bokkaale jullit war na am xam-xam bu leer ni mucc ci bokkaale lan la koy jural yan njëriñ la ko amal soo góorgóorloo ci sa dund ba yàlla dimbali la nga mucc ci bokkaale doo nekk bokkaalekat yow rëcc nga ñaareel mooy an yufarriqa al muslim bayna masirin bayna masiri man mata ala tawxid wa man mata ala shirki bokk na ci njëriñu darsu tey mooy jul bi mën a taqale mujjuwaayu ku dee ci bokkaale ak ku dee ci ñàkk bokkaale yan ñooy njëriñ yan ñooy xéewal ki dee te bokkaalewul yan danger yan musiba mooy moo nekk ci ki dee bokkaale ñetteel wa an yurida al muslim amsilat ala al andad allati tu'badu min dunillah dina bokk ci njëriñ yi nga xam ne di jël jullit dina ko jëlee ci leçon tey bi mooy mu xàmmee ana yan ndend ana yan xeet ana yan mbir ana yan façon tey moo dugg ci bokkaale bu ñëwee ci dars bi tomb bi ci njëkk mooy hadisu ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal man maata wa huwa yad'u min dunillahi niddan daxala annaar rawahu buxaari yent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ci hadisu ibnu mas'ud yonent bi nee na képp ku faatu ba ngay faatu yaa ngi woo wala yaa ngi jaam wala yaa ngi ñaan keneen kudul yàlla yaa ngi ko jàpp def ko ay ndend yow da nga dugg safara man maata képp ku faatu wa huwa moom jamono jooju muy faatu yadu mu ngi doon jaamu mu ngi doon ñaan min dunillahi keneen kudul yàlla nit dan def ko ay ndend lan mooy nit mooy asabi wa tamsil yaa ngi jàpp leneen lu dul yàlla def ko place yàlla yaa ngi doon jaamu leneen lu dul yàlla yenent bi nee na waa jooju def loolu yadduxulu naar day dugg safara kon gis ngeen ci alquran jàng ngeen yàlla mu ne fala tajaalu lillahi andaadan wa antum taalamun bu leen utal yàlla ay ndend te yéen xam ngeen ne yàlla amul kenn ku muy dendal te aaya boobu bi ko yàlla di wax suratu baqara borom bi subhanahu wa taala lim na li mu def ginnaaw bu mu waxee ne nañ ko jaamu yaa ayuha nnaas ibudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaquun ba mu waxee ne yéen nit ñi jaamu leen ma mu commencé di wax moom yàlla li mu def allazi jaala lakum al arda firasan wa samaa binaan wa anzala min alsamai maa fa axraja bihi min alsamarati risqan lakum lan la ci rek mooy ngallawaay ngallawaay fala tajaalu lillahi andaadan wa antum taalamun bu leen utal yàlla ay ndend bu leen dendale kenn ak yàlla te yéen xam ngeen ne yàlla amul dendandoo bu leen ko def yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko laajee ban bàkkaar moo gën a rëy ci bàkkaar yi ayu zanbin azam lan la toon an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak mooy nga utal yàlla ndend te xam nga ne yàlla amul dend te moo la bind kon nit te mooy ndend mooy nga jël lenn wala kenn di ko nuróoleeg yàlla wala nga koy jox misaal boo xam ne yàlla moo ko moom li yàlla di def nga jox ko nit yow bokkaale nga te képp ku dee yaa ngi bokkaale da ngay dugg safara moo tax mbokk yi te bokkaale ni mu sawee noonu la bëree tey noonu la tasaaroowee noonu la ci nit ñi duggee am na ñoo xam ne bañ ci dugg xam nañ sax ne ñoom ñu ngi bokkaale waaye seytaane moo leen ci jàpp ba mënatuñ cee génn am ñoo xam dañ koy def sans xam am ñoo xam ne réer moo leen ci dugal ñett yëpp benn baaxu ci kon jullit war na ràññee liñ doon wax ci tàmbali mooy nga xam mu leer ci yow nañ ne képp kuy bokkaale bu deewee dee dem safara léeg-léeg nga wax lu mel noonu nga gis ci biir mbooloo mi kanam yi commencé lëndëm xol yi commencé xat dënn yi commencé bañ lu tax parce que dañu wax ku bokkaale day dem safara te waa ji moom jàpp na ne lii muy def mënu koo bañ a def laa budda mu def ko ndax lii ci la bokk waaye dañuy bàyyiloo xel rek ab jullit bu bëgg a dugg aljanna ëllëg buy jaamu yàlla ndax xam ne lépp lu yonent bi wax bokkaale la moom bu ko defalee keneen bokkaale na bu dee dee dem safara moo tax ibnu mas'ud mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man maata wa huwa yad'u min duni illahi niddan daxala naar képp ku dee bi ngay dee yaa ngi woo keneen wala yaa ngi jaamu keneen nga def ko ndend dendale koog yàlla nga jël loolu teg ko place yàlla wala nga jël kooku teg ko place yàlla yenent bi nee na yow da ngay dugg safara safara nag lépp lu fay dugal jullit war na ko mooy tandiku te bokkaale moom sikk nekk ci nekk ko deewaale da ngay dugg safara kenn du la ko baal ñaareelu hadis ci muslim jaabir moo ñu ko nettali radiallahu anhu mu ne anna rasul allahi sal allahu alayhi wa sallam qaal man laqiya allah la yushrik bihi shay'an daxala aljanna wa man laqiyahu yushrik bihi shay'an daxala annaar xadis sànq ci buxaari la nekk te yéen jàng ngeen ci xadis ñu ne xadis boo gis ci buxaari bul werante ay mbiram ku ci tegu muslim ñaari xadis yi ci buxaari muslim lañ nekk xadisu jaabir yonent bi nee na képp ku dee dajeeg yàlla bokkaale woo da ngay dugg aljanna képp ku dee dajeeg yàlla yaa ngi bokkaale da ngay dugg safara man laqiya allah képp ku taseeg yàlla laa yushrik bihi shay'an bokkaale woo ko ak dara mu ne daxalal janna da ngay dugg aljana waaye mu ne wa man laqiyahu képp ku dajeeg yàlla yushrik bihi shay'an daxalal naar képp ku dee dajeeg yàlla yaa ngi bokkaale da ngay dugg safara kon leer na lii dugal nit ñi aljanna xam nañ ko lii dugal nit ñi safara xam nañ ko lan mooy dugal nit ñi aljanna mooy bañ a dendale yàlla kenn ak lenn mooy nga am tawxiid lan mooy dugal nit safara mooy dendale yàlla kenn ak lenn mooy bokkaale kon ku dee bokkaale woo da ngay dugg aljana ku dee da ngay bokkaale da ngay dem safara su ñëwee ci anasiru addars wala maani almufradat annidd alshabih walmasil lan mooy ndend mooy nuróole jël yàlla di ko nuróoleeg li kenn wala nga jël yàlla di ko nuróoleeg lenn comme tey ni mu xewee ci jamono jël li yàlla di def jël melokaanu yàlla wala nga jël ay jëfam yoo xam ne moom rek moo koy def nga jox ko mbindeef loolu mooy a nit laa yushrik bihi shay'an mu ne laa yattaxis maahu sharikan fi l ibada mooy jaamu gi ngay jaamu yàlla jàppoo ci kenn wala lenn di ko ci sidd xam ngeen ñun tey suñ jaamu yàlla dañoo lànk foog ñu sédd ci leneen lu dul yàlla jaamu yàlla bu mun a am nag bu mun a am boo xalaat rek nit ñaa ngi koy def sédd nañ ci ku dul yàlla te munoo fexe ba nit ñi bàyyi loo wax wax wax wax am na ñu ci moy rek màtt ko ak seen dëgg nara dee rek dem safara kon ixwatal iman bu ñëwee ci anasis dars mooy tomb bi ci njëkk du'aa gayrullahi shirkul akbari ñaan keneen ku dul yàlla mooy bokkaale bu mag ñaan xam ngeen ne ñaan ak du'aa yeneen bi nee na huwa al ibada ñaan mooy jaamu yàlla ñaan ñaan mooy jaamu yàlla ad du'aa ibadatun min ajallil ibadati ñaan jaamu yàlla la waaye ci jaamu yàlla yi gën a màgg la bokk ndax ki ñaan toog jonkon wala mu sujjóot wala mu taxaw yëkkati ay loxoom dafa am loo xam ne mënu ko mu koy ñaan yàlla mi ko mën loolu moo tax ñaan ki koy def tuutil na boppam doyadil na boppam toroxal na boppam wane ne ne moom daa manqué wane ne moom matu wane ne ne moom mënul moo tax mu tàllal ay loxoom di ñaan gis nga wala mu sujjóot di ñaan wala mu toog di ñaan wala mu jonkoon di ñaan wala mu taxaw di ñoon wala mu rukkoo di ñaan wala mu tëdd di ñaan moo tax ñaan dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg moo tax yàlla tabaraka wa taala mu ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna allazina yastakbiruuna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko waxloo ci qur'an mu ne ko yàlla nee na wa qaala rabbukum seen borom nee na ud'uuni ñaan leen ma astajib lakum ma may leen ñaan leen ma ma may leen ñaan day wane na jaam bi dafa am lu mu mënul yàlla rek moo ko mën mu koy ñaan dafa am lu mu soxla yàlla moo ko yor mu koy ñaan dafa am lu mu yaakaar yàllaa ko yor mu koy ñaan ñàkk ñaan yàlla ki ko def dafa rëy da ngay gis am na ñoo xam duñ ñaan te yàlla nee na seen borom nee na ñaan leen ma ma may leen mu ne inna allazina yastakbiruna an ibadati ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu ci sama jaam ñi bañ maa ñaan sa yadxuluuna jahannama daaxirin dinaa leen dugal safara dinaa leen dugal ci xur woowu tudd jahannama kon ñaan mbokk yi jaamu yàlla la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan jaamu yàlla la yemul ci loolu sax mu ne addu'a muxul ibaada ñaan mooy yuq jaamu yàlla yuq mooy yàpp bu ñu ko lekkee yax bi liy nekk ci biir yax bi loolu mooy jaamu yàlla ibaada la jànge ñu ne addu'a silaahul mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit jullit ngànnaayam mooy ñaan muy ñaan yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla day wàcc guddi gu nekk ba sëccëm asamaan naan ku may woo ma wuyu ku may ñaan ma may ku may baalu ma baal ko gis na ku may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may baalu ma baal ko kon mbokk yi ñaan ci jaamu yàlla la bokk day wane ne yaa ngi toroxlu yaa ngi ñaan sa boroom am na loo soxla sa borom moo ko moom nga koy ñaan moo tax yàlla ne ñaan leen ma ma may leen ñi nga xam ne ci sama jaam ñi dañ maa bañ a ñaan di rëy rëylu dama leen di dugal safara mu ne falaa yajuuzu du dagan sarafuha li gayrillahi taala du dagan mukk jullit muy ñaan keneen ku dul yàlla mu jël ñaan jox ko keneen du dagan yàlla ne tabaraka wa taala wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahad jàkka yi yàlla moo ko moom ku fa kenn woo wala nga fay ñaan keneen ku dul yàlla jàkka yi néegi yàlla la yàlla rek lañ fa war a jaamu yàlla rek lañ fa war a ñaan keneen amu fa beneen programme yàlla rek mu ne fa man jaala lillahi niddan yaduuhu sawaan kaana malakan muqarraban aw nabiyan mursalan aw abdan salihan aw gayru zalika faqad waqaa fi shirki l akbari mbokk yi képp koo xam ne dangaa dendale yàlla ak keneen wala leneen nga koy woo mbaa nga koy ñaan moo xam kooku malaaka la bu jege yàlla wala yonent la bu yàlla yónni wala jaam bu baax la yow day dugg nga ci bokkaale dugg nga ci bokkaale bu mag bi bi nga xam ne laa yanfau maahu amalu saalih bokkaale bi nga xam ne soo julletee yàlla du ko jël soo wooratee yàlla du ko jël soo ajeetee yàlla du ko jël boo saraxeetee yàlla du ko jël boo zikri tudd yàlla yàlla loo defati ci lu baax yàlla du ko jël kon looloo tax ñu war a xam xàmmee bu baax li nga xam ne dafay yàq suñu jaamu yàlla maadaama bokkaale day yàq jaamu yàlla moo xam ki nga koy defal malaaka la malaaka yi dañoo rawante dafa am malaaka yoo xam dañoo jege yàlla même ñooñu li ñuy jege jege jege yàlla boo leen jëlee bokkaale nag yàlla sa jëf yëpp yàqu na wala nabiyu mursal yonent bu yàlla yónni Muusa Isa Muhammad Ibrahim Nuux ñooñu yàllaa leen yónni li ñuy baax baax baax baax soo leen bokkaale ak yàlla sa jëf yëpp yàqu na wala nag jaam bu baax suñu tëbee malaaka Jibril Mikaayil ñu tëb ñooñu ñu ñëw tëb yonent yàlla Muhammad tëb Ibrahim ñu ñëw ne jaam bu baax jaam nit nit nitu yàlla comme gars yi li ñuy wax diw nitu yàlla la nga jël nitu yàlla nga jël ku baax kooku di ko dendaleeg yàlla def nga musiba wala malaaka lañ la jëkk a tere tere la yonent te jaamu yàlla yooyu ñoo gën a màgg ñoo ñoo gën a màgg ci jaamu yàlla yonent yi ak malaaka yi ñu malaaka moom du mooy yàlla day jaamu yàlla guddeeg bëccëg ah yonent yi ñoo gën a baax ci nit ñi ñu ne la ñooñu li ñuy baax baax baax soo leen dendalee ak yàlla sa jaamu yàlla yàqu na léegi yow nga bëgg a ñëw jël mbindeef nit sa moroom wala nga jël ay bàyyi ma wala nga jël ay garab wala nga jël ay xaaw wala ay petaaw wala ay lam di ko dendaleeg yàlla kon na war a leer ci ñun mbokk yi lépp lu yàq jaamu yàlla ñu war koo moytandikoo képp koo xam ne dangaa dendale yàlla ak benn malaaka wala benn yonent wala benn nit ku baax na nga yëg ne yow dugg nga ci bokkaale bokkaale gi nga xam ne dootul jëriñ nag ngay def lu baax soo xasee bokkaale yàlla sa jëf yëpp yàqu na sa julli yàqu na sa koor gi nga doon koor yàqu na boo aji woon màkka yàqu na lépp loo defoon ci lu baax yàqu na waaw mi ngi mel ne ku jàpp ba pare rek waroon julli njàppam toj est-ce que bu jullee jàpp julli gi baax na kooku du baax ci moom lu dul mu demaat rek jàppi noonu la bokkaale mel saa yoo bokkaalee rek sa jëf yëpp yàqu na mbokk yi mu ne walaw kaana saahibuhu min abudi naasi mu ne même bu fekkoon ne waajooju bokkaale moo dàq jaamu yàlla ci gox bi ci kër gi ci koñ bi ci jàkka ji ci dëkk bi jaamu yàlla am yàqu na même boo dàqoon jaamu yàlla nit ñi li nga defoon yëpp sippeeku na walaw kaana min abudi naas kon nañ leen góorgóorlu ñu xam ne nekk jaamu yàlla lépp lu koy yàq ab jullit war na koo moytandiku te jaamu yàlla li koy yàq du leen lu dul bokkaale wala rayba anna zalika mimma yujibu siddat al xawf min assirki looloo tax mu jural ñu sunu diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ragal ci ñun bokkaale ba mu ñu koy dénk pour ñu moytandiku ndax lan dafa yàq jaamu yàlla te jaamu yàlla bu yàqoo nit ki dugg safara bu sa jaamu yàlla yàqoo rek nga dugg safara xaysu innahu yuhbitul amal gis nga moom bokkaale dafay yàq jëf wa yujibul xuluudu fi naar day tax nit sax safara yàlla tabaraka wa taala wax na ci alquran ne dinaa baale bàkkaar yépp ba mu des bokkaale nit mën na rey nit yàlla baal ko nit mën na njaaloo yàlla baal ko nit mën na fen yàlla baal ko nit mën na sàcc yàlla baal ko waaye ku bokkaale deewaale ko yàlla du la baal moo tax ñetti abaadala yi ñooñu ngeen dégg ñu ne ñoom ñooy abdullahi te ñu gën a dégg fiq ci ci ci àddina bi ñu raw ci lislaam al abaadala ñeent lañu ñoom ñeent ñu ne nga wàtt yàlla nga fen moo gën nga wàtt ci nit nga wax dëgg nga wàtt yàlla nga fen moo gën nga waat ci nit nga wax dëgg ñu ne leen lu tax ñu ne boo waatee ci yàlla nga fen fen yàlla dina ko baale mais boo waatee ci nit nga wax dëgg dangaa bokkaale yàlla du baale bokkaale innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yàlla nee na képp ku ma bokkaale araamal naa ci yow aljanna yàlla nee na dinaa baale bàkkaar yépp ba mu des bokkaale ki waat ci nit mu wax dëgg dafa bokkaale te bokkaale yàlla du ko baale gis nga loolu tax ñu war a moytandiku lépp loo xam ne diine ji dafa ne loolu bokkaale la wala ci xeetam la bokk wala ci ay façon la jullit war koo moytandiku ñaareel bi ci anasiru dars mooy jazaul muwahhid lan mooy fayu ku wéetal yàlla ki kennal yàlla ki def yàlla kenn ki bokkaalewul lan mooy fayam ki nga xam ne dundam yépp dafa góorgóorlu ba sori bokkaale kennal yàlla mu ne man maata ala tawxid taarikan li sirki saghirihi wa kabirihi wa mujtaniban lil kabairi daxalal janna mu ne képp koo xam ne dangaa dee ci kennal yàlla bi ngay dee da nga am tawxid mbokk yi ibrahim yonte yàlla ibrahim lan la ko yàlla taggee ibrahim lan la ko yàlla takkalee grade bi gën a kawe mooy imaamul muwahidin xoolal grade bi mu gën a rëy bi mu am mooy njiitu ñiy wéetal yàlla kon képp ku dee ci tawxid ci kennal yàlla dendale woo yàlla ak kenn wala lenn yaa ngi bàyyi bokkaale bu ndaw ak bu mag bu mag bi mooy tandiku bu ndaw bi sori nga ko nga mooy tandiku bépp bàkkaar bu mag da ngay dugg aljanna kon lii dugal nit aljanna mooy mu sori bokkaale bu ndaw ak bu mag mu sori bàkkaar yu mag yi su ko dee du su dee dugg aljanna waaye wa man maata alal maasiya kabirihi aw sagirihi musirran alayha fa huwa taxta almashia mbokk yi ci ñun képp ku ci faatu bi ngay dee bokkaale woo de amoo bokkaale bu mag amoo bokkaale bu ndaw waaye bi ngay dee yaa ngi deewaale bakkaar yu mag yi yaa ngi njaaloo yaa ngi rey nit yaa ngi lekk riba yaa ngi tuumaal jigéen ju sangewu yaa ngi daw bi su xare bakkaar yu mag yooyu bi ngay dee yooyu nga def mu ne yow yaa ngi ci coobare yàlla tabaraka wa taala inshaa bu ko neexee moom yàlla azaba mu mbugal la wa inshaa bu ko neexee xafara mu jëggal la gis ngeen ki dee bakkaar bakkaar bu mag kooku mbiram ci loxo yàlla la nekk lu neex ci yàlla mu def ko mais ki deewaale bokkaale moom safara la jëm direct ki nga xam ne nag moom bi muy dee dafa wéetal yàlla kooku direct aljanna la jëm kon sunu leçon tey ñetti mbir la ñuy jàngal ban moo ci njëkk dama leen di laaj de mooy kennal yàlla ku wen ku kennal yàlla bu deewee àjjana la jëm ñaareel bi bokkaale ku bokkaale boo dee da ngay dugg safara ñetteel mooy ki nga xam ne dafa dee bokkaalewul am na tawxid waaye dafa deewaale bàkkaar yu mag yi kooku ay mbiram mu ngi ci mbiri yàlla tabaraka wa taala su neexee yàlla yàlla baal ko su neexee yàlla yàlla mbugal ko fa huwa ala almashia mu ci coobare yàlla tabaraka wa taala bi fadlihi wa in saa azabahu bi ajlihi summa yuxrijuhu min annar wa yudxiluhu aljanna su neexee yàlla mu tàbbal ko safara mbugal ko après mu génne ko ci biir safara dugal ko aljanna ñooñu la ñuy wax ne ñu ngi ci coobare yàlla yàlla mën na leen lakk ay bis ay semaine ay weer ay at ndax seen bàkkaar yooyu waaye après yàlla da leen di génne ndax lan ndax la ñu amoon tawxiid ku am tawxiid doo sax biir safara bàkkaar yi nga def bu la ko yàlla baalul dara koy lakk après mu génne la kon yal nañu yàlla may tawxid bu nu yàlla mayee tawxid yal nañu yàlla soril bàkkaar yu mag yi ak yu ndaw yi yal nañu yàlla soril bàkkaar bu bon bu dangereux boobu nga xam ne moom mooy bokkaale mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala lii moo doon sunu dars tey ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu saxal ñu ci mu soril ñu lépp loo xam ne luñ ci ragal la wala luñ ci moytandiku yal nañ ko yàlla soril assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu